ay ca e combat de la soirée pak ngi ndaysan mu wara dox ci diggante ndjay walu bu écurie Kër sar ak ñang balu bu écurie Mor Faram arbitre bi conseil juge am consulter na mari arbitre bi sifflé na 3e combat bi ñang balu ngeen jàkkaarloo ndjay walu mo leen wan ginaaw ñaari mbër yaang ngi tay 3 tay tey production woo ñu fi 18 mars di journée de la femme ñang balo ngi nonu moom ngeen jàkkaarlool njaay waalo mo leen won ginnaaw ñang balo mu ngi fa la nga xamantene moy mooy écrit moon fadam njaay joge fa la nga xamantene moy mooy écrit kër masaar njaay ak ñang balo junior ñaar mbër yaangi ngi ñinga dem man ay kaw ñang balo ak ñang balo ak kan njaay walo ñang balo ngeen jàkkaarloo njaay waalo moo leen wan ke waré keur waree ke waré kee waree géejawaay mor fa dam ñang baalo ne la combat bi ci la wara a tàkkee walo ne ko do tàkkee ci man waye nee la léegi mu leer ñaari mar loto wax ak ñom ñang balo ak kan walo Njaay Waalo moo leen won ginnaaw ñang baalu ngeen jàkkaar lool ñang baalu ak Njaay Waalo ñang baalu ak Njaay Waalo ña ngay leewtoo rek di demante ay baaraam pour peñ amagul cong amagul ñang baalu ak Njaay Waalo eh ñang baaba doon dem na waaye mét waaye demul ñang baaba door na daje nañu croisé na ko laa ilaaha illallah jàppante nañu ñang baalo ak njaay ak njaay waalo ñang baalo ak njaay waalo ku nekk ngay door ci suuf njaay waalo ngi door dooraat na dooraat dooraat na ñang baalo ak njaay waalo ñang baalo junior moo leen wan ginnaaw njaay waalo mooy door noonu ci ñang balo ak njaay waalo ñaari xale yaa ngi bëre ñang baalo ak njaay waalo ñang baalo ak njaay waalo ñang baalo ak njaay ñaari mbari ku ci nekk ngay ya japp rek ne tekk karal ñang balo ak ñay walo ñang balo ak ñay walo ñang balo japp na ma ngay japp ci ngemb yi ñang balo japp la bëgg way njaay walo ngi tuuti ci suuf ñang balo ak ñay walo attention ñaari mbari ñang balo ak ñay walo ñang baala njaay waalo ñang baala njaay waalo génn na ca laa ilaaha ñang baalo ak njaay waalo ñang baalo ak njaay waalo bare leen léegi cinq minutes yu mat ñang baalo ak njaay waalo ñang baalo ak njaay waalo ñang baalo ak njaay waalo ñang baalo ak njaay waalo ba tey ñang bala tak nako eh eh lan moy xew la ilaha illallah oh dan nako barkat api. fayna la matu santi yalla bu wow, Wow, waaw xam nga rek d'abord dañuy sante yalla bu wër waaw di sant sama turandor gi ñay Waalo wallahi dafa son ci man ma ngi sant waalo waalo bu baax baax parce que dama la amel bor ndax li tax ñu tuddé ma seen bop ba légui fayaguma len ko té dama len ko wara fay di ja di nuyu jamagan yëpp Siteu champion mag bi mom kessé lañu am ma ngi koy sant bu baax xam nga Sini di sant ma ngi nuy Sini bu baax a baax wa égri jamagan Aigri jàmmagan si am seen fay. Laurent Ndiago bi wallahi day taxaw chaque jour pour ma am combat mais jaam ak pexem yàlla ak dogalam xam nga di nuyu écrit jàmbagat Sika Mbao suñ grand bi kii amuñu fayam yàlla xam na ne kii amuñu fayam quoi di nuyu tax xam nga Jibi ñoom Dieg Fall xam nga waa ngàcc gi billaa wala xam naa bés bi nu mu demee tey moo tax tey xam rek mooy loolu gars yi dañoo dem màggal ji loolu la ko maa sant waa Mbour may sante bu baax sama nijaay Gawsu ñom fi Vieux da Yara Diaw may nuyu encore une fois chamen chamen babu cham da sonni ci combat bi yalla xam nako mais tamit xama di wax gaay yi nañ ma jël quoi xama beng Mboro beng Mboro na yow ñu bëre beng Mboro 4 combat la am 2 victoires 2 défaites man may sama 3 combats 3 victoires wa mais dara ñeneen ak ñeneen ñu fi gaay dañ ma wara jël ci bu mi tel billah wallahi